di wax ni fi mu toll ni tey ñoo ngi ñëwaat di def ay jàngat ci li nga xamante ni mooy suñu réew di leen sant yéen waa Thiès Info ci dalal bi nga xamante ni dalalaat ngeen ma ko pour ma indiwaat sama xalaat ci li nga xamante ni mooy réew mi bala ñoo dem ci problème mu Idrissa Seck li ñu lëkkale man ak moom tey fi mu toll ni am na cursus boo xamante ni ku ci nekk xool naa la ndax le président Idrissa Seck ànduñu woon man mi di wax ak yow mosuma def politique ci président Macky Sall laa dugg ci politique te li ko waral mooy injustice boo xam te ni jàpp naa ni tegoon nañ ko ko ñu jóg jàppale ko mu am benn programme bu mu ñu indiloon muy programme mu yoonu yokkute ngir su ñëwee dina indi benn Sénégal bu bees diggoon ñu ne dafa bëgg beneen nouvelle république un nouveau Sénégal boo xamante ni tey dina nekk pays de droit un gouvernement sobre et vertueux un pays de droit indi yoonu yokkute ñu am yaakaar ni fi ñu toll tey moom ci après independance bi mu juddu su ñëwee dina tegaat ci yoon ba sénégalais bu na mën a gis boppam ñun loolu moo ñu lëkkale woon ak la président Macky Sall tey sa Seck kuy doomu cees mënoo ko bañ ndax ku gis nen ne nan a ngi nii gis nañ ni fi ñu toll nii depuis Ousmane Ngom ñu fi nekkoon maire lépp loo xamante ni defoon na ko ci cees ñi ko fekke woon démb ak ñun ñi nga xamante ni fekke nañ jamono Idrissa Seck tay li fi nek ci rew mi Idriss Seck mo fi def ci régime ki nga xamanteni moy mooy président Ablaye wad kon je croyais que fi ñu tay Idriss Seck son bobu andu ñun ci politique ndax wax nako en 2011 digganteem ak Ablaye wad ci leen bolé won ba nga xamanteni ñoo ngi ci 2007 ndax tey kenn umpalewu ni Idriss Seck ci faluk Ablaye Wade en mille contribué na ci man ci li ma jàpp à 60 pour cent ndax moo ko jëlewaat France Ablaye Wade dem vingt six ans d'opposant boo xamante ni tey ci vingt six ans d'opposant yooyu mu def Idriss Seck contribué na ci ci mars bleu fal ko mille ñoom ñaar ñu doon benn jëm boo xamante ni kenn lañu woon kon le président Idrissa Seck tey si li may wax misaal foofu laa jàngaat ay mbiram ba ni ñu ànd ci élection législative yi passé parce que élection 2000 bi muy ñëw moom ànd nag Ablaye Wade ba Ablaye Wade fuuta la waxee ni sama digganteeg Idrissa sekk di sama doom ciseaux lañu suñu àndul ñoo jariñ tey Idrissa sekk wax ma ci làmmiñu boppam ne ma li mu yéene woon bàyyam Ablaye Wade mooy li Nelson laa am. ci li nga xamante ni mooy àdduna bi ak Afrique ndax Nelson Mandela xeex na ci apartheid ba tëdd kaso lu ëpp vingt ans génn nekk président Afrique du Sud def benn mandat jël réew mi bàyyi kook ñi nga xamante ni mooy noir yi fa nekkoon di xeex loolu àdduna bi yëpp naw ko ci mu tekki bu mu njàm goo xamante ni Afrique du Sud amoon na ko ci note gu leen doon noot Abdoulaye Wade tamit Christian soy xool am na lu mel noonu parce que il a fait 26 ans d'opposant fii Sénégal ba démocratie réew mi liggéey na ci lu rëy ba lépp luy infrastructure ci réew Sénégal tey ginnaaw yàlla dañ ko sant Ablaye Wade ndax régime yi fi jaar li mu fi def tey ci kar xar kanamu réew mi ba ku fi ñëw tey naw ñu Ablaye Wade def na ci lu rëy rëy tey Idriss Seck loolu jàppoon na ci xamal ma ni nag moom yéene bi ma ko yéene woon mooy mu jaar ci grande porte mais man j'ai vu que ni Idriss Seck tant que moo doon ci wetu Ablaye Wade erreur yi nga xamante ni am na ba sénégalais yi sanctionné ko su fa Idriss nekkoon du am. ma gis na it bëgg réew mi ci bi ñuy dem 2012 tey lépp loo xamante ni jafe-jafe la digganteem ak Abdoulaye Wade ki fi nekk tey njiitu réew joué na ci lu bare bëree bari ngir lan problème de positionnement mais suñu Idrissa Seck nekk na kuy topp wala Sénégal ñor ko duñ dem ba 2012 ñu gis ne sénégalais yi fi ñu toll ni am nañ yéene pour jële fi Abdoulaye Wade ndax li ñu ko jiiñoon mooy dévolution monarchique impinité boo xamante ni waa këram ñoo ngi ko doon def ak arrogance ak injustice. mais doon réalisation lañ sanctionné Abdoulaye Wade yalla def Macky Sall génn deuxième tour am 26 coalition bi nga xam te ne mooy Benno Bokk Yaakaar tey ñoom seen bopp ku ci nekk bi ngay wax ak Macky Sall teg nga pacte Idrissa seul moo taxaw ne président Macky Sall man dama lay jàppale sans condition ni négociation ndax Sénégal moo ma ñor juum ak Ablaye Wade wax na ko ne moom julit la dafa am kilifa sunu sëriñ sëriñ Saalif Mbàkke moko wo and ak serigne Moussa Nawel xamal na ko fi sa baye ablay wat dama bëgg ngeen and liggéey bi muy dem di wuyjuwaat Ablaye Wade Idriss Seck moo wax ci boppam neena soxnam ak i ak ñi nga xamanteni ni nañ ko ba ci man mi mere won nako mais la ca biir lépp boole lu ko neex ak lu ko nakari and ak ablay ngir lan ndigalu serigne salim mbake Cheikh abdul Aziz Al Amin ñëpp xam nañ ni ba muy ànd ak Abdoulaye Wade di ko fekk ci palais ba moom moo ànd ak moom yóbbu ko ba ci Abdoulaye Wade kon kilifteef moo taxoon mu ànd ak président Abdoulaye Wade Idriss Seyd fi mu lu mën am PDS moo ko gënal mais dëkk bi nag dafa nekk dëkk bu naqaree waxee parce que ku fi xas ba falu chaque jour di nga am ñoo xamante ni lépp lu baax loo xamante ni dala la war a jage ñoom suñu mënoon yàq ko dana ko yàq ngir lan problème de positionnement loolu moo tax diggante Idriss Wade yàqu te moom seul moo fi jàppale le président Macky Sall sans condition ni négociation xamal ne ko nag réew mi tey yow lan jox bopp ci 2012 yàlla def nga war a jiite réew mi ndax deuxième tour képp ku fa dem di président africain na la wër ni di nga daanu kon dama lay jàppale sans condition ni négociation mais lépp loo xam te ni gis naa ko ci lu baax pour askan wi dinaa ko cautionné su baaxul dinaa joxe sama xalaat te soxlawuma benn poste boo xam te ni danga ma koy jox ngir coalition bi tey. ñëpp ñi ci nekk di ci dugal seen loxo jàpp naa ne réew mi ñoru leen ay cër ak privilège yoo xam te ni ñoo ngi koy jot ci président Macky Sall moo tax tey ñu ànd ak moom président Idrissa nag bi mu demee ba joxee xalaatam ci la ne ko muut mbaam mott boobu léegi aussi ma gis wala ma dégg mu yëkkati benn baat bu ñaaw boo xam te ni tegginuwul teg ko ci daru président Macky Sall chaque jour heure bu waxee ci réew mi lay wax ci li nga xamante ni mooy pacte bi mu diggoon ak président Macky Sall pour réew mi mën a tegu ci yoon ba Sénégalais mu bu ne mën a gis boppam loolu fi mu toll ni heure bu ci indee orientation ñu jël ko dugal ko ci néeg yoo xam te ne dëkku fa tey ñu dem ba ci élection législative yi passé ñu doon xaar benn cohabitation tey opposition bi yépp waroon ànd ñu ne ñun assemblée nationale digne de son lañ bëgg ndax depuis 60 à nos jours système bi fi nekkoon tey mooy système boo xamante ni tey exécutif bi saa su ne day jël tànkam nappaaje ko ci ñaari pouvoir yi nga xamante ni mooy pouvoir judiciaire ak pouvoir législatif tey ñu gis ne kon il faut ñu mën a teg ay proposition de loi yu leer ci assemblée woote fa aussi loi yu leer ci assemblée ba pare saytu li nga xamante ni mooy budget bi contrôle li nga xamante ni mooy action gouvernement bi Idrissa sec ak dayo bi mu am fàtte woon na boppam il est le seul boo xamante ni tey moo tegul benn intérêt personnel rien que pour coalition boobu mën a dund kon crisis bobu nga xamanteni tay tey gis naa ko ci président Idriss Seck ci la gis ne kon politiciens yi fi jaar depuis 1960 à nos jours moy politicien bi ci gëna constant moy politicien bi ci ëpp kilifa. parce que tay ñëpp xam nañ ni victimiser nañ ko ci li nga xamanteni mom moy digënté digganteem ak Ablaye Wade nonu ñu ko victimiser ba tax mu dem àndaan ak Ablaye Wade ci kliftef tay timit muy jël intérêt réew mi ba tax mu faté bopam je crois kooku fu mu toll nii su ne bëggul Sénégal. yaa ngi wax waxu parparloo wala yaa ngi wax waxu tappale lii moo tax man ma Aliou ak Idriss Seck ñëw taxaw nag jàppale ko ngir xam ni moom fi mu toll nii c'est un boo xamante ni li nekkoon ci Ablaye Wade ba mu defar réew mi tey loolu moo ngi ci Idriss Seck te liggéeyu Ablaye Wade bi jàpp naan la sa Idriss Seck moo ko mën a eggale. Mar wax naa la ne la politique du xastante politique doo dugg ci vie privée jàmbur politique c'est pour gérer la cité. cité bi nag moy lan moy suñuy politiciens il faut ñu respecter askan wi nga xamante ñoo leen fal ndax tay man je n'ai rien contre le maire Talla Sylla c'est mon grand frère ku ko jox cër la ku yàgg naw ay démarches am laa wax naa ni moom it cursus mu wax ci Idriss Seck Talla Sylla am na cursus mel noonu parce que depuis mu nekk xale maanaam nekkoon ci primaire ba ni mu nekkee lycée Malick dem université dafa mën a mën a ay combat yoo xamante ni intérêt askan wi ñoo doon gis seen bopp mais démarche bi mu jël tey man su ma ko doon wax ni. conseil la bo xam dama koy jox moy anduma ci parce que moom responsable la kilifa la malgré moo ko Idriss sek sekko nañ teranga tay tala yag na fu tol ni xex pour senegal yag na xex pour Thiès mais Thiès mu suñu ko jox bop tay nak Idriss sek man wax naa ni maire fi nek tay bam fi cieur kep ko xam tane am nga fi cieur nang ko sante Idriss sek ndax tay ci régime Ablaye Wade li di senegal ak Thiès gi nga xam tane mom lañ bok tay lepp lu fi bax ci bañaru ablay wad la ko Idriss Seck defaree Thiès ba xar kan mu ties bu changer aussi comme ni ma ko waxee ci ablay wad nan ko sant le président Idriss ginaaw yalla tay kon suñu àndee def ben coalition bu ñu wax ànd defar ties tay ci kaw coalition bobu ñu wax ni fiñ mu toll le taal si Idriss jël na maire ville jox ko lam ci jublu won puy and ak mom pour mu gungé ko ci li nga xamanteni fi ne moy combat bi nga xamanteni mom lay mëne pour mëna indi wat Sénégal bu bees bo xamanteni mom lañu président mak Sall légui nak erreur politique bu amé gegeer am entre ñoom ñaar man mosuma dégg Idriss Seck yëkkati kàddu wala mu def loo xamante ni fi mu toon lu ñaaw la teg ko ci deru Talla Sylla kon Talla Sylla en tant que responsable je croyais que fi toll man li ma ko doon conseillé mooy fi mu toll noo xam ni moom kilifa la te kilifa du tuuti am na yenn baat yoo xamante ni xale yi topp suñu ginnaaw ñoom suñu ci nekkee di ko wax xale yooyu fi mu toll nii suñu référé woo ci loolu ëllëg Sénégal mën naa doon Sénégal boo xamante ni téesante lay doon ak mbiicoo ak mbaaloo te politique nekk na loo xamante ni lu noble la Idriss Seck yéene bi mu amoon Talla Sylla du woon tey ñoom ñaar ñuy toog di réeroo ak am problème kon nag comme problème am na vraiment fi mu toll nii instant yi xale yi mën nañ toog di wax mag ñi taxaw pour àtte leen mais moom am na yenn kàddu yoo xamante ni yu tegginuwul war ko yëkkati di ko teg ci dara Idriss Seck parce que dàll Macky sàll moo gën Idriss Seck loolu fi mu toll kàddu gu ñaaw la parce que Idriss Seck c'est un être humain Macky Sall ab dàllam loolu objet boo xamante ni actuellement nii fi mu toll nit ku ne di nga jëfandikoo li nga xamante ni mooy dàll. kon su jëlee dàll Macky Sall muy gën Idriss Seck wax boobu fi ñu toll ñun mënuñu ko rafetlu tey mënuñu ko rafetlu suba encore une fois nag man li may wax que ne guerre bi tey Thiès moo ciy perte ndax le problème mooy ñu leen ñoom pour ñu fi nekk di guerre xeex boo xamante ni xeexu personnel la léegi population Thiès bi leen faloon di am ay problème kooku su ma sañoon war nañ mën a toog concerté wu xool dëkk bi na leen mën a def ba mu avancé pour sénégalais yi ak yi mën a gis seen bopp encore une fois man damay interpeller le maire Talla Sylla di ko wax ni na fàttaliku ginnaawam et de fàttali aussi xam gnam xamni ñuy and ci coalition bi nga xam tane and defar ties la pour defar ties mo len taxone jog kon je crois que nan rafato te baña a wax yu ñaaw yi nga xamante ni ñi top topp seen ginnaaw ku ci nek yang koy lancer sa morom te lol du intérêt pour ties du intérêt pour Sénégal c'est-à-dire man le problème Omar waxna la ne la Idriss sak man japp na la moy politicien bi gëna constant ci Sénégal parce que waxna la jaar jaaram te lepp lu ci nek day faté bopam tay digëntem ak ablay wad problème amon na ci mais xeex boo gis ah mën nañ dem autour de table waxtaan ba juboo guerre jaal sax fi mu toll nii ci waxtaan la la la la ab te Abdoulaye Wade man j'ai vu que ni tey li mu séq ak Idriss Seck moom la séqoon ak Macky Sall mais Idriss Seck fi mu toll nii li ko Abdoulaye Wade defal moom la defal Macky Sall mais lii Macky Sall def Abdoulaye Wade ci loo xamante ni sonal na ko indil ko fitna Idriss Seck def ko Abdoulaye Wade. parce que li ma lay wax mooy Idrissa Seck lu ñu mën a wax ay wax la verbal yoo xamante ni seen diggante la te kooku gegeer boobu am ni moo indi woon loolu mais tey Macky Sall li mu am lépp ci politique Abdoulaye moo ko defal malgré nag fi mu toll nii su dee moom tooñ nan ko ba injustice moo jàpp ni moo tax mu jël réew mi moom tooñar bi na parce que def na fi loo xamante ni tey benn président bu fi jaar su ko def ndax tey moom bi mu ñëwee indi CREI yi dafa waxoon ni pour fi jóge la ndax lépp loo xamante ni ubal lubal nañ ko ci alal réew mi dinañ mu nekk demande sociale mais visé wu ci kenn ku dul doomu Abdoulaye Wade di Karim Wade tëj ko trois ans exilé ko réew mi tey à l'heure ñi nga xam te ne épinglé woon nañ leen muy les vingt cinq personnes ba léegi fi mu toll nii jàpp ci kenn ma jàpp ni république kenn du ko yore noonu tey Abdoulaye Wade fitna bi nga xam te ni daj na ko ba bi muy jël réew mi di ko joxaat Macky Sall xamal na ko fi mu toll nii sama doom nga dafa mel ni réew mi génnul sama loxo tàllal sa loxo ma ñaanal la loolu su ci Macky Sall jublu woon tey réew mi fi mu nekk ci problème ak xeexu xuloo bi du am amna de mag la am 91 ans bu demé bu wàccaat ci langue ji jàkkaarloog Macky Sall c'est parce que xolam neexul té loolu yëpp fi ñu ñun waxu ñu justice bu mu def ligéyam mais li ñu mënul concevoir moy jël république ba nga xam tane ni askan wi yëpp ñoo ko yow nga nekk li nga xam tane ya wara définir politique nation bi wara tek teg dëkk bi ci yoon jël li nga xam tane moy justice bi di ko dóor ku la neex di bàyyi ku la neex ci sa ñooñ indi fi of nag ne pour ñun la képp koo xam tane ni luubal nga ta bokk ci man duma la protéger. tey gis nañu fi mu toll nii OFNAC épinglé na ñu bari te le président Macky Sall moo jël tànkam dëgg ci dossier yooyu c'est que ñun Sénégal foofu moo tax ñu taxaw ne li ñu bañoon démb ñun tamu aram warta mën a dagan tey parce que du problème Macky sàll ay réalisation ndax tey ñun jox nañ ko tous les pouvoirs pour mu defar li nga xam te ni mooy Sénégal ndax loolu war waruñu ko ci neexal waruñu am jërëjëf parce que tey le président Macky Sall privilège bi ko Sénégalais jox benn Sénégalais amu ko parce que jox nañ ko palais boo xamante ni tey

un président de la république la am boo xam xamante ni dafa war a jël république bi yamale si képp koo xamante ni yaa ngi ci Sénégal di fi yeewoo cër boobu fi mu toll nii ku ko am ñu jox la ko ku ko amul fi mu toll nii instant ñu xañ la ko te loolu yoon moo ko mën a xañee yoon moo ko mën a joxe. xam nga procès bi Umar dañu waxoon ne moo ngi ci loxo yoon mais ñun demuñu gànnaar mais xam nañ ban heure la ñuy la ñuy añ wala la ñuy reer le problème man le maire Khalifa Sall du ma wax ni jël na du ma wax ni jëlul mais Cour des comptes IG ci li nga xamante ni mooy section Khalifa Sall. budget am ëpp na cinquante milliards bi nu ñëwee càmbar ko dañu wax ni Khalifa mooy bokk na ci maire yi nga xamante ni mooy maire yi gën a liggéey ci Sénégal caisse d'avance boobu nag nekk loo xamante ni fekkoon nañu ko fi depuis 1928 xaw ma 1924 caisse d'avance bi am na même le euh, maire Mamadou Diop bi mu ñëwee wax na ne Khalifa nii mu ko doon jëfandikoo noonu la ko doon jëfandikoo Pape job même soos mais su dee tey dañu wax ni équité leen bëgg ci suñu réew indi un pays de droit warul am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey. tout sama mbay Ndiaye wax na ko Mbaye Ndiaye wax na ni Khalifa li ko dal moo ko teg boppam parce que tey su doon rangé wu na derrière le président Macky Sall su doon lekk milliard par jour kenn du ko woo kon est-ce que doon la ñuy yore réew le problème mooy rapport yi nga xamante ni IGE da koy def wala Cour des comptes mais su paree ci kaw table président Macky Sall la koy jox la koy teg moom mooy xool ku ko ci neex mu topp la xool ku ko ci neex mu jël tànkam dëgg ci loolu lan ne dëgg du yoon. parce que tey kees yooyu nga xamante ni jàppe nañ ko Khalifa Sall moom le président Macky Sall am na ko ñoo ngi wax ni nag kees yi du benn kees d'avance ak fonds politique yi du benn mais man jàpp naa ne fi mu toll ni benn la parce que lépp sénégalais yi ñoo koy natt ci suñu ay impôt dinañ ko jox ñoom le président Macky Sall il a presque huit milliards ñii di wax neuf milliards Tanor Dieng bi nga xamante ni tey au conseil des cultures locales territoriales bi nga xamante ni maanaam institution bu amul benn xorom la saful suukar kenn xamul lu mu doon amuñu benn siège boo xamante ni dinañ fa taxaw pour liggéeyal Sénégal il a 500 millions ci lo xam fonds politique am la chaque année ñu natal ko jël budget 6 milliards jox ko Moustapha Niass muy ensemble national Sonko wax na tout récemment sen budget ci ñet feuille la nek jël nañ 15 milliards jox amul kenn ku koy contrôler conseil économique social environnemental bi amine Tall yor tay jël nañ budget lo xam presque 30 milliards par mois diko jox amine Tall ta kenn du ko contrôler

te bëri na ñoo xamante ni ñoo ngi doon taxaw tey di kaas loolu tey ñoo ngi ci biir di mëq seen mburaake partage gâteau bi foo ko takk wees na ko ne cel te nag kon sénégalais ñoo war a xam ni fi mu toll nii mbesum kanam borom moo koy fajal boppam. le président Macky Sall tey gis naa ne fi mu toll nii fi ñu ko doon xaar ci li nga xamante ni mooy jafe-jafe askan wi lu ci bëri échec na ko parce que boo xoolee tey front social bi am na tey suñu dette extérieure plafonné wu na 70 pour cent tey dette nga xamante ni mooy dette intérieure suñuy entrepreneur.

gerte gi du am problème ba baykat yi seen gerte mën a jar tey mu teg leen ay taxes ba chinois bàyyi fi suñu gerte ñun dem ci yeneen réew jël fa gerte tout récemment def na benn tournée économique ñun li ko jàppe mooy campagne déguisée la lan la wax baykat yi muñ leen ngeen téye seen gerte bañ ko pot bañ ko waat neef tey man dinaa dem négocier waat ak chinois yi nga xamante ne maa leen dàqoon ngir ñu ñëwaat jënd seen gerte loolu je crois que Omar manque de vision la te tey à xoolee dëgg-dëgg réew mi fu mu toll ci front social bi toll tey lépp loo xamante ne mooy suñu woote ko 2012 à nos Pour ne plus de vingt et quelques mille milliards yoo xamante ni tey jaar na ci loxo nguur gi te tey fi mu toll ko dugal du priorité parce que sommet de fer moo ngi nii à l'heure actuelle waroon am 1037 kilomètres yoo xamante ni bu ñu ci Dakar. Touba day dox Dakar Saint-Louis dox Dakar Kaolack dox Dakar Bamako dox tey gis nga ne fi mu toll raay ba soo fa demee comme ay sët ñu ñu benn terre boo xam 57 km, xaw 54 km. la concerné diggante Dakar AIBD jël ci def ci 568 milliards yoo xamante ni uniquement pour jàppale français pour ñu mëna taxaw taxaw so soo xoolee doxandeem mënta tabax am réew am réew doom réew mo koy tabax tay le problème moy tay suñuy entreprise yi nga xam te ne moo ci réew mi Macky Sall waroon cee def alal jappel leen dara doxul 500000 emplois bi ñu leen diggoon fi mu toll lépp échec na. kon nak jot na ñun sénégalais ñu mom suñu bop politique politicienne bi ñu wàññi ko ak parparloo bi xool les hommes qu'il faut ñu mel à la place qu'il faut ñu melni le président Idriss Seck mo xam te ne constance ci ñu ñi lu ñu gis maam jàppale ko jox ko réew mi ngir ëllëg liggéey bi nga xam te ne moom la Abdoulaye bàyyi woon Idrissa mën koo eggale ndax Abdoulaye Wade kenn sanctionné wu ko ci ay réalisation dañ koo diaboliser te li ñu ko diaboliser woon lépp le président Macky Sall moo koy def à l'heure actuelle kon nag li araamoon démb man jàpp naa ne warta mën a dagan tey il faut Sénégalais jël seen responsabilité deuxième point bi carte yi nga xamante ni tey mooy suñu ay carte d'identité nationale ñu jël suñu 52 milliards def ci loolu fi mu toll opposition bi nañ taxaw pour carte yooyu sénégalais bu ne mën jot sa carte pour suñu droit civique ñu mëna ko fi tolni joxé ba ëlëk ñu mëna fal président bo xam ni dina jóg pour intérêt Sénégal deuxième point bi aussi lima ci ciy moy il faut réew mi askan wi nan xam ni ñoom ñoo souverain tay képp kuñ fi jox ndomba tank ak cër bo mëna am askan ñoo la ko jox tay askan woowu leen ko jox defaluñu leen dara.